nag xam naa fa ko bindoon moo dem ñoom xam nañu man xam naa maa ngi leen di ziar ziar bu wóor ndax tamit nit dangay ngay sàmm sa kaddu kon maa ngi jégalu bu baax ca ñi nga xam ne ñoom ñoo ma woo noonu ah di Mouhamed Niass rakk ci Mansour Niass ñu ngi koy ziar ñooñu fàtte naa tur bi waaye nag nañ jàpp ne euh, dinaa ko seet ba gisaat ko di nuyu bébé Pape Gawsu Thiam di xale bu am 3 ans waaye kër gi ci boppam télécommande am ci loxo lay nekk. bu ñu tegul Kouthia kenn du seetaan télé ak beneen jimelam bu ñu naan bébé Khadija dëkk ca Sicap Mbao ñoom ñëpp nag ñu leen di ziar am na ku ne ci ligne bi allo. allo waaw asalaamaaleykum. salaam. sama sëriñ. waaw. char naa la bu wër waay. kii di sa ah? kooku. allo man la sëriñ Ibrahima. sëriñ. Ibrahima Sine. ah sëriñ Ibrahima. waaw. def. ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah yëkkatil kàddu gi. waaw waaw dama la indiloon ndogu. da ma indiloon ndogu. waaw mais dama ci am lu ma metti nag. ndax teraanga moom nu mu mel. waaw kenn waru ko delloo. dégg-dégg bi des naa leer de. ma ni. waaw. dama indiloon teraanga mais dama ci jële gàcce. da nga ma indiloon teraanga waaye. dama ci rus dama ci mujjee rus. ndaxte bi ma ñëwee ba foofu visite bi bàyyi na ma. waaw. mais euh, daf ma ni ma laajte ku tudd Pierre da Silva. waaw. ak Top. waaw. waaw bi ma ñëwee nag dama la indiloon monsieur xar. ñoo ko jox. waaw non dama dama ci rus ndax bi mu ñëwee laajte la ñu ne yaa ngi émission. waaw sëñ bi maa ngi émission kay warul tax nga dem da nga dem. waaw demuma demuma euh, Pierre ak Top daal ñoo ma ne sa médecin moo la tere fan yi euh, yàpp xar moo tax ma yóbbuwaat ko. ku ñu tere yàpp xar. ah Pierre ak ak togg. dañu déedéet aram ne ko sàngara yàpp xar kuñ ko tere doo nit. wuyu ma. waaw waaw sëñ bi. ah man dama ci rus. déedéet noo tudd maa ngi dem nii. noo tudd. Serigne Ibrahima Sine. Ibrahima nan. Sine Sine. ah yow de sama doom bàyyi nga Sine nga sant. waaw waaw. doo départ rek topp sa tànk jël ndawal gi xaar ma. ah déet man dama ci dama meroon bi may dem bi moo fi xaaruma ndaxte loolu mënoon nañ ne ko jox après nga xool taalibe yoo ko mën a baaxee rek. bañ a wariloo ñi sant siin de waaye wax dëgg yàlla xanaa ma wariloo ñu sant siin rek. Ah. te bañ a dëkk HLM. waaw loolu du Pierre képp ku sant siin te dëkkoo HLM. wari nga amul ay grand frère la amul ay jàpp képp ku sa jëkkër sant siin ah. wari nga bu weesoo ñi dëkk HLM ca kër ga wax. waaye ku fa jóge sax dem am jabar feneen takk fa wari nga yaag say jabar yaag say doom. yow mii wari nga ndax waroon nga maa xaar ba gis ma soog a mën a gëm la may wax. waaye génnal ci télé bi waaye wari Pierre la Pierre la dama ne wari nga. ku tudd Pierre la Pierre dara ndax Pierre taxulaa jóg maa la tax a jóg. lii ngay def nii bëgg a jël sama xel def ci yàpp rek te xam na tey balaa may tëdd guddi dinaa lekk yàpp kon ku tudd képp ku sant siin dëkkoo HLM même bu fekkee da nga faa dëkk génn am jabar feneen ak sa jabar ak say doom say xarit ñi la xam say collègue bu dee yaa ngi liggéey ba tey wari nga sama ngañ <laughs> xam naa ne sama jabaru grand frère yi ñu ngi naan kii dey ñun la bëgg wariloo waaye bu boobaa ñu xam ne ne démocratie maa rek la su ko defee Pierre maa ngi nuyu Bina Diop Bina Diop bébé Fatou Diop ak Mbayang madame Sow chéri Khalifa Sow Marie Gomis suñu goro la kookoy goro Assane Diop Assane Diop ngi ci foofu nga xam ne moom mooy Kaolack quartier bu ñu naan Ndar bu ndaw ASC super étoile ñu leen di ñaanal bébé Mamou Bayo bébé El Hadji Bayo bébé Awa Seck ña nga ca Escape Urbam ñuy nuyu tamit Cheikh Kane Guédiawaye Tata Ndeye Daabo cité Kër Xaadim de la part de Laari Samb kon bébé El Hadj ak bébé Awa Mbay ñoom ñëpp ñu ngi di nuyu Pierre ña woon ca yoonu jixaat bi nga xam ne moo war a am diggante batar batar ak batar buut di profité waat di ziar bi sëñ Abo <laughs> Mbàkke waay Mbàkke Balla Aysa waaw maa ngi lay nuyu di nuyu président Mamadou Racine Sy bu kii par place lii ci la bokk jërëjëf sama gars yi sëñ Abo <laughs> sama xarit Abou Bilal sëñ Abo xalif <laughs> général bu kër sëñ Fallou sëñ ay sëñ Abo ay sëñ Abo waay woote bi nag xanaa nag bëkk néeg dinañ ko dégg <laughs> sëñ Abo waay wóor na yàlla sëñ aboo boobu léegi jeexul dama ci cof mu dem bay waaj a jeex mu mel na xéewal la ciy dolli waaye sëñ aboo ñëwal waay <laughs> su ko defee may kontaan bu baax di nuyu tamit sëñ Mbay Mansour sëñ Mbay si Mansour sama xarit da ma bëgg te yàlla tax ma koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu suba nag dina am kiraama xam nga ban kiraamay am ay fa greffage cheveux naturel moom laa fas a génne suba fii ci kër gi ay cheveux naturel laay génne ay tàndarma ay kaamin laay génne suba ay kaamin dekkal ñu dee ku bëgg a gis xadafi xadafi ci boppam bi ñu tàggee woon ak Ben Laden suba ma dekkil ko fii ci biir télé bi suba ma dekkil ku dee ci tele bi maa wax loolu tey waaw ku ci am xarit boo nam ma gis rek te mu won la ginnaaw woo ma mu ñëw ma dekkil ko nga gis ko waaw de passage may nuyu Karim bu dee fekkee mu ngi seetaan maa ngi koy nuyu wadd fara wadd waag maa ngi lay ziar bu baax heure bi 2011 yaa ngi ma compaloon su ko defee Pierre bu fekkee ne waxtu bi xaj na ci nga jël dernier appel bu ci xajul ñu ñaanalante auditeurs yi tàggoo am na ku ne ci ligne bi allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. saa waa ñu ndaanaan nga de. ah kii di sama waa ji démb ji. moo ma de. waaye démb way nañ lu neex fi waay. bëgg ci yow lool bëgg ci yow lool. ndeysaan. ndaanaan baa ngi. waaw. ñii xuloog yow te xeexa yow bu nekk paale. dëgg la. doo seen moroomo te mappandoor. wax nga dëgg. yaa lem yaa man fii yaa man fële te yaa domine alaaji bilaaloo ndaa naan nga. maa jóge fii dem Xureesi fekk ki nga xam ne mooy alxatami mu jàngal ma ma jàngal ko mu jàngalaat ma ma jàngal ko mu jox ma li ma daa dee ñibbisi. lim nag ci yow loolu ñi ñaane yaa jàll Jérusalem. jug Jérusalem oo dem nga bi Riyad jóge Riyad dem Makkal Mukarram dellu tax ma ne bul faale te bul xuloo te bul xeex nga ma ne maa ànd batar batar war ko lu ko jaaxal ànd ak batar buut war ko lu ko jaaxal puutar taxaw aali ba ndax aali bu ndux xatami na ma ee eh, na xatam xatam na ba ndax na bu ndux na ba ndax ba ndaxee eh, ma taxaw jàkkaarloog ñoom ndaanaan nga moo tax ma waaw kon batar batar batare batar batar kay butar butar batar batar batare batar batar kay butar butar butare butar butar kay batar buut ni butur ni batar batar buut ni batar batar buut ni batar lu xee aji bu ndux ba ndax ba ñu jógee foofu fu ñu jaar Iran di jaar Jérusalem ak fan jàll Riyad ak fan ba Qatar. ak fan. dugg yemeno. Oh, ak fan ba nga dajeeg waaw. ba nga dajeeg xatame bu jëlee ngay jox la. dëgg la. sa nga buut ak batar buut. bi nga dellu Sénégal na defar. waaw. kon ku ci tardé ka dem ba ko fa. ñi bunduxu. alxatam. ñi xatami. xatam bu xatami xatami. bundux bundux bundux xee eh, bundux bundux xee eh, ay bundux al bundux ay bundux al bandax ay bandax bundux